commencé. jàpp ah. je m'appelle Ibrahima Diakhaté. Je suis le mandataire du candidat ministre d'État, M. Habib Donc euh, nous venons de sortir euh, de la salle de vérification du contrôle des parrainages. Donc euh, tout s'est très bien passé. Donc euh, notre parrainage a été validé par la commission de vérification et de contrôle des parrainages. Voilà, alors évidemment, je pense comme vous le savez tous, euh, notre candidat a été parrainé par les députés du PASTEF. Ça, tout le monde le sait. Et c'est l'occasion vraiment de rendre un grand hommage à M. Ousmane Sonko et à toute la direction du PASTEF pour la confiance qu'ils ont portée à notre candidat M. Abipsi. Et comme vous le savez, nous, nous l'accompagnons. Et comme l'avait dit le président Abipsi, évidemment, nous prions de tout cœur pour que sa candidature soit validée. parce que juridiquement, rien ne s'y oppose. Donc c'est une prière du fond du corps que nous faisons. Parce que notre candidat, c'est M. Ousmane Sonko. Je pense que et, euh, si nous sommes à côté de lui, c'est parce que c'est un homme de très grande valeur. Nous, nous l'avons côtoyé, nous le connaissons. Donc nous sommes avec lui et évidemment, comme l'avait dit également notre candidat, M. Abibsi, si sa candidature, la candidature de M. Ousmane Sonko est acceptée, il va retirer naturellement Donc vraiment, c'est vraiment ce que nous tenons à dire. Et encore une fois, nous prions, hein, parce que notre souhait le plus profond, c'est que la candidature de M. Ousmane Sonko soit acceptée. voilà tur bi ak sant bi. salaamaaleykum Ibrahima Diakhaté mandataire Habib Sy candidat à l' élection présidentielle. donc comme ni ngeen ko xamee euh, monsieur Habib Sy ay député Pastef ñoo ko parrainé. et loolu vraiment dañ ciy profité pour remercier leen d' abord toute la direction du PASTEF parce que moom ni mu ko waxee ndeysaan bi que Ousmane proposé comme candidat ñëpp nangu ñëpp ko nangul donc ñu ngi leen ñu ngi gërëm waa PASTEF yëpp particulièrement nag monsieur Ousmane Sonko pour qualité gi mu jox sunu président ministre d' état Habib Sy ñun nag dañu ñaan yàlla waaw yàlla dañu ñaan yàlla. moom candidature moom mu jàll parce que Ousmane ko mooy suñu candidat waaw ñun xam nañu ko vraiment c' est un homme de très grande valeur morale et intellectuelle et li ñu ñaan yàlla wax dëgg yàlla mooy moom mu jàll parce que buñ ko tënkee ci yoon rek ci droit rek vraiment ci yoon bu ñu doxalee yoon candidature itam dafa war a jàll waaw ñun loolu la ñuy ñaan yàlla mu jàll parce que il le mérite il s' est des années pour être candidat à la présidentielle te bu yàlla defee mu jàlla incha allah comme ni ko ministre d'État Habib si waxee moom day désister wu au profit de monsieur Ousmane Sonko loolu daal laa amoon lu may wax di leen gërëm nag waaw ngeen ñaanal ñu yàlla candidature Ousmane Sonko mu jàll incha allah merci beaucoup. Euh, jërëjëf euh, c'est 맛있다 보니까 voilà mu ngi noonu comme euh, ni ngeen ko gisee Euh, pour rappel ki nga xamante ni rek déjà moom moo nekkoon le premier ci euh, seconde phase bi di euh, El Hadji Ibrahima Sall il a été invalidé ak ki nga xamante ni moom mooy toppan nag moom mooy le ministre d'État Habib Sy candidat déclaré déjà son mandataire moom moo nekkoon doon génn doon di wax moom aussi tamit bokkoon na ci ki nga xamante ñi nga xamante ni rek daal dinañuy valider Euh, seen candidature moom nag pour rappel mu ngi jëfandikoo parrainage euh, des élus euh, bi nga xamante ni Ousmane Sonko wala en tout cas la coalition Yewwi Askan Wi de façon globale ñoom ñoo amoon. lu ëpp ci ay euh, député daal dinay jëfandikoo euh, benn bi nga xamante ni rek euh, moom la daal di am muy treize député yoo xamante ni daal nañ koy signel moom Habib Sy ba tax na actuellement daal dinay réussir aussi tamit li nga xamante ni rek moom moo nekkoon commission de contrôle du parrainage et de vérification daal dina koy réussir moom Habib Sy mu desaat ko peut-être yeneen phase yi nga xamante ni daal nañ koy mettre en place te mu wéy di soxal le processus électoral ñu rek di xaarandi xam est-ce que dégg nga aussi tamit mandataire bi lu mu ñëw de façon globale en ce concerne la candidature du président Ousmane Sonko wala en tout cas rek daal di wax moom mooy au cas où ñu valider candidature bu Ousmane Sonko euh, Habib Sy seen candidat dafay rek daal di euh, wu waaye juste dafa xaw a nekk probablement mën nañ ko tuddee euh, en tout cas benn plan boo xamante ni Ousmane Sonko daal dina koy tekk mu mel ni ba tey le continue est-ce que aussi Euh, fi ñu toll euh, ci moment bi nga xam ne stratégiquement parlant dañoo soxla ay en tout cas ay ñoo xamante ni euh, mën nañ jéem a surfacer les choses jàpp naa ne moment bi ñu toll nii moment bu bu doy la ci ki nga xamante ne que moom mooy Ousmane Sonko mais aussi je pense que poids bi nga xamante ni daan na ko def wala en tout cas pion bi nga xamante ni def na ko teg na ko ba réussir ko muy la candidature du président Habib Sy dafa nekk mbir boo xamante ni lu extraordinaire la parce que dañoo nekk ci moment boo xamante ni euh, Ousmane Sonko moom gëm na ne euh, c'est pas parce que dañoo soxla benn Ousmane Sonko euh, en toute pièce mais dañoo soxla koo xamante ni dina mën a doxal projet bi di Pastef ba tax na nag ci ay stratégie yu bëri te wuute jàpp naa ne sax ci loolu la la candidature de Bassirou Diomaye Faye ci la juddoo waaye aussi tamit yeneen alliés yoo xamante ni éventuellement mën nañ leen a xaar kani rek Ousmane Sonko mën na mujjee virer ay ci ñoom. dañuy daal di judduwaat euh, ci noonu jàpp naa ne aussi tamit loolu moo waral tey Habib Sy parce que buñ demee ba mën a nekk en collaboration wala ñu mën a dem ba am yenn affinité yi ba tax tey jii nii Ousmane jël ay député mi nga xamante ni ku ne xam na ne treize député mën na en tout cas euh, parrainer ab candidat mu mën a jël treize député ci ay député mu jox kii di Habib dèjà loolu dafay nekk benn confiance boo xamante ni am na ko waaye aussi dafay nekk calcul politique loolu nag c'est pas évident pour ki nga xamante ni peut-être maîtriser na la politique sénégalaise te Ousmane Sonko jàpp naane ne actuellement lu muy wéy di xeex rek moom mooy koo xamante ni dina mën a réussir ak électorat bi nga xamante ne actuellement am nañ ko moo tax ma jàpp ne ba tey. dafay ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy division bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko euh, depuis ces derniers moments ñun ñëpp xam nañ que ni loolu tey moom moo xaw a nekk en conflit muy en tout cas le monde bi nga xamante dañoo bëgg ab continuité ak peut-être l'autre monde bi nga xamante ni dañuy incarner la rupture est-ce que nag tey buñ tollee fii kenn ku nekk di jéem a en place ay alliés yoo xamante ni éventuellement bu deuxième tour amee dinañ la mën a rek daal di euh, tegal loxo euh, loolu nag jàpp naa ne dafay xaw di nuru par rapport ak. ay semence politique yoo xamante ni mais pour rappel Ousmane Sonko réussir daal na benn pas ci li nga xamante ni nag loolu la doon xeex aussi loolu la ma si wax que ni c'est pas la personne d'Ousmane Sonko qui est importante mais lan moo am importance moom mooy koo xamante ni rek mën na porter projet bu Pastef gisoon nañ jamono jëlee bi nga xamante ni rek euh, caabi féete woon na ko ginnaaw ba ñu dem ba dugg ci wàllum parrainage bi ne ba ci cappaandal ga mu ba désigné Bassirou Diomaye Faye euh, mu jëfandikoo lu jëm ci wàllum euh, parrainage jëm ci wàllum citoyen yi pour juste rek ñu mën a réserver waat yeneen ñaari candidat yoo xamante ni euh, par rapport ak 26 euh, députés wala plus de 26 députés yi nga xamante ni am na ko mu mën a euh, ne ñaari candidat mu mën koo réserver pour au cas où moom Bassirou Diomaye Faye mën na rek daal di réussir parrainage citoyen parce que gis nañ euh, contexte bi fi ñu ak Sénégal yi cofeel bi nga xamante am nañ ko ci moom déjà depuis lors mu depuis mu joxe li nga xamante moom mooy consigne boobu gisoon nañ à travers en tout cas partout ci pays bi ñu organiser euh, en commission di def li nga xamante ni rek moom mooy parrainage boobale mais amaana peut-être aussi Bassirou Diomaye Faye éventuellement moom moo nekk ni numéro bi nga xamante moom la occupé euh, fait partie parmi les numéros les plus reculés est-ce que loolu dina ko arrangé wala déet euh, par rapport ak doublon externe yi nga xamante wala doublon interne yi nga xamante ñu ngi wéyee di ko nemm ko ci mbir mi est-ce que aussi du profito rek ci li nga xamante peut-être moom mooy ñu mën koo parrainer par rapport ak beneen bi parce que loolu aussi beneen calcul lay laaj wala beneen sement lay laaj parce que Ousmane Sonko en réalité waroon na fekk moment bii nii ñu xam ay mbiram parce que aussi moom moo nekkoon la numéro 4 est-ce que bu fekkente ni depuis en tout cas samedi bi Ousmane Sonko euh, boor moment bii nii euh, lan la xaarandi moom mooy peut-être éventuellement la candidature de Bassirou Diomaye Faye mën euh, rek continuer par rapport ak li nga xam te ni moom mooy parrainage est-ce que loolu euh, lan lañ ci mën a xaarandi moom mooy dafay fekk éventuellement euh, ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye fay mu jàll ndax Bassirou Diomaye fay bu jàllee ak li nga xamante ni moom mooy euh, parrainage citoyen am problème mu doublon bu mu war a rattrapé waat est-ce que tey Ousmane Sonko mujjee tëj liste bi est-ce que foofu noonu tamit du xaw a nekk benn mbir boo xamante ni la chance revient ki nga xamante ni moom mooy Habib Sy loolu aussi tamit ñu ngi wéy di ko xaarandi mais en tout cas mbir la boo xamante ni ñoom tamit war nañ soxlawaat ay calcul politique yoo xamante ni nii dina leen mën a permettre a ce que ñu nekk ay mathématiciens un plus un égal deux partout dans le monde jàpp naa ne beneen semence bu ñu war a tegaat la est-ce que aussi tamit mënuñoo njortu éventuellement euh, Bassirou Diomaye Faye son mandataire mu def comme la fois passée li nga xamante ni loolu lañ gis euh, malgré ce pas prévu parce que nous a dit ni kii di euh, mandataire Ousmane Sonko à la fois son avocat d'ailleurs même l'un de ses conseillers waxan ñu kan rek moom dafa ba xam est-ce que aussi tamit euh, en tout cas nekkul loo xamante ni lu ñu doon xaar ci moom la loolu nag dafay wéy di nekk. peut-être loolu la yàlla dogal mais politiquement parlant jàpp naa ne euh, ce n'est pas pour rien lu mel noonu rek daal am mais juste lu ñu wax rek loolu la ñu mën a jàpp que ni dafa piqué woon malaise mais ñuy xaarandi euh, vendredi incha allah nekk dernier jour bi Ousmane Sonko moom mooy tëj li nga xamante ni rek moom mooy mbir mi entre temps nag gis nañ ay candidats yoo xamante ni euh, dañoo désister est-ce que ndax dañu doon wéy di def probabilité au cas où Ousmane Sonko vu que ni moom moo nekk le numéro 4 bu ko valider candidature am ci lu soxal contrôle bi wala de vérification fii ci euh, conseil constitutionnel jëm ci wàllum parrainage est-ce que ñoom seen ay sens du gën di wàññeeku ci ba tax ñu bañ euh, seen ay 30 euh, millions ba tax ñu teel a deltu ginnaaw bu fekkee aussi tamit validé ñu Ousmane Sonko ñu gën di continuer par rapport ak li nga xamante ni rek moom mooy xeex bi nga xamante ni ñu ngi ko doon xeex moo tax ma gëm ne la fekk Ousmane Sonko mujj nekkaat la quatrième personne bi nga xamante ni moom moo war a mujjee jàll tax résister ñenn ñi aussi euh, jàpp naa ne éventuellement dañuy demee li nga xam ni moom mooy probabilité mais de toute façon ñu ngi woy di xaarandi par rapport ak la candidature euh, de Bassirou Diomaye Faye ak euh, en tout cas celle d'Ousmane Sonko fan la rek di mujjee parce que Bassirou Diomaye Faye actuellement moo nekk ki nga xamante ni moom moo war a njëkkatee jàll ki nga xamante ni rek moom mooy Euh, Ousmane Sonko mais en tout cas lu si mën di xew ñu ngi wéy di xaarandi ba xam aussi tamit en ce qui concerne Bassirou Diomaye Faye ban stratégie la ñuy adopté ndax aussi tamit dañ koy wéy di bàyyi mu jébbal parrainage euh, citoyen bi nga xamante ni euh, moom la rek daal di Ousmane Sonko sàkku woon ci moom wala déet loolu aussi ñu ngi wéy di xaar mais actuellement amaat na beneen mandataire bu nekk en route di ñëw ci ñun ginnaaw El Hadji Ibrahima Sall mi nga xamante ni dañ ko invalidé Habib si daal di ciy topp moom aussi tamit daal di nay nekk ki nga nañ sa candidature a travers parrainage des élus yi nga xam te ni jëfandikoo na ko sous le contrôle du président Ousmane Sonko actuellement kan moo nekk di génn bu fekkente ni mandataire la dafay wéy di nekk le mandataire euh, ni moom mooy Habib Sy kon mën nañ supposer jusqu'à l'épreuve du contraire que ni mandataire bi di ñëw euh, forcément dafay wéy di euh, de Malick Gakou Malick Gakou aussi tamit gis nañ taxawaay bi nga xam dina am na ko au sein de la coalition Yewwi Askan bi moom aussi ñu ngi woy di xaar kañ est-ce que aussi tamit mënul am euh, comme benn position boo xam te ni dafa jouer rôle allié wala ñu ngi woy di xaar mais gis nañ taxawaay bi nga xamante ni am na ko ak euh, peut-être euh, ci moment yi ni nga xamante ni rek noonu lay woy di identifier woo waaye aussi noonu lay woy di xeexee li nga xamante ni rek moom mooy anti système et d'ailleurs mën nañ ko boole ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo incarné la rupture di wéy di ñëwaat par rapport ak la division bi nga xamante ni moom laa leen di wax sànq ba léegi que ni le Sénégal a été récemment divisé en deux parties ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy incarné rupture ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo bëgg continuité loolu nag dafay woy di ñëw ci ñaari grand combat yoo xamante ni rek moom moo daal di am wala en tout cas ñaari tanoor yoo xamante ni rek ñoom ñoo sekk làmb ji parce que euh, képp koo xamante ni da nga nekk opposant bu identifié wala opposant bu radical dañ lay boole ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo bëgg laarum tiyoox ñoo ñoo bëgg euh, benn Sénégal bu bees ñoom ñoo bëgg aussi li nga xamante ni rek moom mooy anti euh, par contre selon ñi nga xamante ni euh, ñoom la ñuy gis ñuy nekk di en tout cas wéy di ànd ak li nga xam ne moom mooy le régime en place ba ñenn ñu jógee foofu noonu tamit nekk ne ay kandaa déclaré rek ñoom dañ leen a boole ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy nekk ci en tout cas ñi bëgg continuité mais en tout cas lu ñu mën a jàpp moom mooy actuellement ñu ngi ci numéro 53 euh, El Hadji Malick Gakou euh, son mandataire